awalu maa yajibu alal mukallafi ana lan moo njëkk war mukallaf tomb bu njëkk bi waxoon nañ ko mooy kan mooy mukallaf ñu jël ba ca tegu mooy tasxiihu imaani mooy mu wéral ngëmam ñu jël ba ca tegu mooy suma maarifatu maa yuslih bihi farda ayni dafa war a xam la tegu ci moom ci ay faratay jëmmam lu mel ni julli ak laab ak ñuy jël tey beneen tomb mooy wa yajibu alayhi an yuxaafida ala xududillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi mbokk julli yi darsu tey mooy dana war ci mukallaf mu wattu respecté frontière yàlla bi diggu yàlla bi mu taxaw ci yàlla lim ko digal mu def mu taxaw ci yàlla lim ko tere mu bàyyi ko ab mukallaf li yàlla tabaraka wa taala sant la mu nekk ay atte yoo xamante ne kenn mënu la koo defal kudul yow sa bopp li war ci yow mooy nga taxaw def ko nga taxaw temm ci bàyyi tere yi nga xam ne moom lala yàlla tere nga bañ a xëtt frontière yàlla bi borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran tilka hududullah fala taqrabuha lëla ngeen di seen ñu ne ah mu ne mooy sama frontière ñu ne léegi nag mu ne bu leen ko jege ñu ne waat ah mu ne tilka hududullah fala taataduha lëla di seen ñu ne waaw mu ne mooy sama frontière ñu ne léegi mu ne bu leen ko jalgati aaye bu njëkk mu ne bu leen ko jege ñaareelu aaye mu ne bu leen ko jalgati allahu akbar kon ñaar la frontière sunu borom bi subhanahu wa taala ñaar la yàlla sàkku ci ñun ñu war koo def ba ca jiitu mooy alqismul awwal ba jiitu bi xaaj bu njëkk bi yàlla ne tilka hududullahi fala taqrabuha lee mooy sama frontière ñu ne waaw mu ne bu leen ko jege mbokk jullit yi foofu yataamalu ma al awamir al manha fala yajuzu al minha foofu sunu borom mi ngi wax ak ñun santaane yi al awamir santaane yan yii mu tere yooyu mu tere ne bu leen ko def moom la ñuy wax mu ne du daggan ci ñun ñu jege ko dafa am ay mbir yoo xam ne dañ ñu koo tere yàlla ne buleen leen ko jege lu mel ne njaaloo gis nga mu ne fala taqrabuha borom bi ne ci aaya alquran mu ne wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo innahu kaana fahisha wa la sabila ñaawteef la te yoon wu bon la kon sunu borom subhanahu wa taala dafa rëdd frontière am mu ne fii la fii laa bëgg ngeen yem bu dee kër la ay teere yi ñuy dagg ku nekk ñu daggal le ne quinze fii nga tàmbalee fii nga yem mbokk yi lu nit ki am doole am doole lu nit ki kannasu kannasu suy tabax ñemewul jël benn genn wàllu ci kër jàmbur mbokk jullit yi naka noonu frontière dëkk yi gis ngeen naka noonu frontière tool yi gis nga loo alku alku alku alku booy ji sa tool boo ñëwee ba fi nga war a yem frontière saag sa moroom foofu ngay taxaw doo jalgati waaw léegi nag su fekkee ñemewuñu jalgati suñuy këri dëkkandoo suñuy tooli dëkkandoo suñuy frontière dëkk suñuy dëkkandoo ndax ñooñ ñëpp ñu ngi taxaw yor seeni yat soo ko soo ko traversé xam nga li la ciy fekk wax kon buur bu toll na yàlla naka lay rëddee ne yem leen fii benn aaya bi mu ne fala taqrabuha beneen aaya bi mu ne fala taataduha bu leen ko jalgati tilka hududullah fala taqrabuha lii mooy frontière yàlla mu ne bu leen ko jege bu fekkee ñaareelu aaye bi la fala taataduha mu ne yataamal ma al awamir allati allah laa yajuuzu tajawuzu anhu fële aaya bu njëkk bi bi yàlla ne bu leen ko jege ay mbir yuñ la tere la ñu ne bul ko jege fii nag dangaa nekk ci lu ñu lu dagan ñu ne bul génn lu dagan li yaa ngi ci lu dagan bul bàyyi lu dagan li di dem ci lu araam falaa yajuuzu tajaawuz du dagan ci yow tajaawuz nga koy dépassé yaa ngi ci lu dagan yemal ci lu dagan borom bi tabaraka wa taala bu baax a baax a baax a baax mu ne wa man yataadda hududallahi faqad zalama nafsa képp ku jalgati frontière yàlla bi wa man yataadda huduuda allahi faqad zalama nafsah ku xëtt frontière yàlla yàlla mu ne tooñ na boppam yaa ngi woon ci sëy bàyyi nga lu sëy bi dem nga ci lu xaraam yow xëtt nga frontière yàlla kon doomu ndey yi dañuy yëg ne frontière yàlla lu ñu war a sàmm la lu ñu war a la war naa rus di xëtt frontière yàlla borom bi nee na képp ku xëtt sama frontière kooku tooñ na boppam tooñoo kenn kenn kenn sa bopp nga tooñ waaw defoo kenn dara sa bopp nga ko def te balaa ngay xam ne sa bopp nga ko def nga taxaw ci kanamu yàlla tabaraka wa taala ci nga yëg ni sa bopp nga ko def yéen sama mbokk jullit nit du bàyyi lu dagan di dem ci lu araam yàlla nee na yaa ayyuha allazina amanu laa tuxarrimu tayibaat ma axala allahu lakum wala taatadu inna allaha laa yuhibbul mu'tadin ee yéen ñi gëm yàlla bu leen aramal bu leen araamal li dagan li yàlla teeyal ci yéen li leen yàlla jox képp koo xam ne jalgati nga bàyyi li yàlla daganal teeyal ko nga jalgati dem ci leneen yàlla nee na man yàlla day duma fay bëgguma ñiy jalgati doomi ndey sunu borom subhaanahu wa taala dafa rëdd aw rëdd bëggul ku ko jalgati bëggul ku ko paase mu santaane ay santaane mu bëgg ñu def ko mu tere ay mbir mu bëgg ñu bàyyi mu may ñu ay bakkan nag wàcce ñu ci àdduna mu nañu tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudxiluhu jannatin tajri min tahtiha al anhaar xaalidina fiha wa zalika al fawzu al azim frontière baa nga nee de ku déggal yàlla gis nga frontière baa ngi nii képp ku déggal yàlla ba xëttu ko jegewu ko topp yonent bi yàlla ne dinaa ko dugal ay jaar aljanna yoo xamante ne dana daw ci suufam ay ndox dinaa ko dugal ci kër googu tudd aljanna dafay sax éternellement te loolu mooy texe gu rëy waaye wa man yaasi llah wa rasula wa yataadda hududahu yudxiluhu naaran xaalidan fiha wa lahu adabun muhin képp ku jalgati yoon woowu frontière yàlla bi nga xëtt ko nga def li la neex mooy yàlla mooy yonent bi yàlla ne dinaa la dugal safara te danga fa sax xaalidiina fiha yàlla ne na danga fay sax te dinañ la fa mbugal mbugal moo xam ne mbugal mu doyadi kon frontière yàlla ab jullit na rus di ko xët borom bi tabaraka wa rëdd na aw rëdd ne bu leen ko jéggi ki alku nag mooy ki jéggi li yàlla ne bu ko kenn jéggi ki alku mooy ku yàlla ne yem leen fii mu lànk dem feneen lu góorgóorlu mbokk yi kon sunu darsi tey mooy ñoo ngi ci li war mukallaf mukallaf bi li ko war awalu maa yajibu alal mukallaf suñu dars tey mooy an yuxaafiza ala hududillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi li war ci mukallaf mooy mu wattu frontière yàlla mu taxaw ci santaane yi mu def ko mu bàyyi tere yi ba subaak jàmm incha allah yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp jazakumullahu xeyran yal na yàlla fay leen ci seen i participation yàlla def ko fii misaani xasanaatikum ñu ngi leen di ñaanal ñaan bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ñaanal ñiy dugal seen alal ci yoonu yàlla baarakallahu lakum fi ma anfaqtum wa fi ma amsaktum wa jazakumullahu xeyran